Salut les amis de Babo Show, merci encore Gaël, la confiance renouvelée, merci du way like, merci également de baisser les commentaires. Hein. diaspora bi mbokk mbokk lukkuru xaat yi gox goxaat ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci euh, l'hôpital yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk ci kaso également suñu borom yal na leen fekk génne delluwaat leen seen i njaboot on avance ensemble euh, dans la magie de Babo Show et des Sport TV l'actualité on continue Gaël actualité bi ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne nag moo jëm ci point mercato bi waaye tamit wax ci nga donc Bamba Dieng également qui régale Noah Fadiga encore en forme mais aussi Adrien Rabiot traître du côté du Paris Saint-Germain waaye tamit Kylian euh, ba Karim Ben Karim Benzema plutôt euh, buteur loolu yëpp gars yi ñu fas yéene ci indi ci ay détails wasaare ko daal lañ ci indil ay leeral ngeen am ko donc ñii di waa Atletico Bilbao ñoo daal di dóor deux buts à trois buts à deux la ñuy daal di door ki nga xam ne nag mooy donc Nico Williams daal nay dugal waaye aussi nga mooy donc son grand frère. nga xam ne mooy Iñaki Williams moom it daan nay gars yi def double passe décisive ki nga xam ne na gars yi moom mooy <coughs> kii di Dani Olmo moom nag trois buts en trois matchs le joueur donc du FC Barcelone Dani Olmo tamit mbokk ci si dynamique baax bu mu ne kii nag di Jamal Musiala moom nag nee na jamono ji waa pour mu daal di signé foofu moom daal mu par semaine daal la leen Jamal Musiala laaj waaye ci nag di waa Bayern Munich amuñu ko moo eh, eh, ko bi tamit nga xam ne gars yi moom 3 matchs. trois victoires le Dadi euh, le joueur donc du FC Barcelone bi nga xamné nak gaay fi dynamique bu baax Olmo hein, l'ancien joueur de RB Leipzig qui donc performe bien évidemment i euh, di Gallagher le joueur des Blues de Chelsea ak du côté de l'Atlético Madrid de dugal na son premier but hein. le milieu de terrain bi nga xam daal moom dafa ne Chelsea ndax li Mohamed, wax tamit momit pour walum salaire Chelsea bugg ko woon fay yooyu mu daal di gedd moom gedd sax nga ko waxee noonu ne di dem yonam pendant ce Napoli mu d'or. di euh, dóor Cagliari 4 buts à 0 avec 1. Euh, voilà, une double passe de qui envoie donc Romelo Lukaku, buteur par les passeurs, euh, mais aussi def match bu énorme bu phénomène à battre nak qui d'Antonio Conte et plus que jamais mi compte ci Romelo Lukaku mi xamné mom lañu tabu mu nek man of the match le dal le yi Romelu Lukaku donc le joueur belge bi nga xam dal mi ngi ci dynamique bu a baax euh, donc nga également gars moy donc Adrien Lukman le joueur nigérien hein, donc Momi Darni euh, Dougalat Lukman il est candidat hein, pour le ballon d'or africain Lukman beaucoup na ci euh, favori par rapport à saison même de club Atlanta mais aussi ses performances individuelles Wa Al itiyad ñoo daal di gagné un euh, gay hein Al Wedak ay Wedak liñ gagné hein ki nga xam donc 7 buts à 1 avec un triplé de Karim Benzegol Benzema le sélectionneur donc li nga xam donc équipe bi di. Euh, donc le patron plutôt de l'équipe de de Al Ittihad Karim Benzema Benzema a dit euh, Douglan, hein, avec son trio bi nga donc Diaby en tout cas le trio le bon gars jamono ji donc ren war nañu le sen seen xaar bax côté de l'Arabie Saoudite Adrien Rabiot dal gars dañ né dal day dem accord mom ak Marseille le joueur passé par le Paris Saint-Germain ñu formé ko moo Marseille commencé nañ guer né Rabiot mom même ba mu nekkee xale euh, Marseille le support, supporté le de Paris Saint-Germain mais bi dal par exemple germain moom jàpp nañ ne da il trahir bu traite la def pendant ce temps Noah Fadiga le joueur de la Gantoise hein, l'arrière latéral mais également fils de Khalilou Fadiga buteur exceptionnel Gaïta avec son club hein, il est très en forme qui en donc Noah Fadiga donc euh, beaucoup aujourd'hui si les joueurs ils ont début de saison bi vont ngi Beaucoup, on est fier pour lui Il hein. il boo xam équipe nationale du Sénégal mais joxuñu ko chance am mu def ay preuve am comme ni ko papaam defe woon ak génération 2000 nga xam ne ñoom ñëpp moo nekkoon seen patron Khalilou Fadiga mais aussi Ahmadou Bamba Dieng wala Bamba Deng Dieng encore buteur hein Bamba Dieng mi contre Strasbourg la doon dajeel mom dal mu dal di en forme également mais comme par hasard aussi ki xam donc Bamba Dieng bi mooy quatrième biom euh, mu koy dugal contre ñi nga xam moy donc euh, le Havre nekkul woon leur préféré les amis mo moo euh plus pour Strasbourg plutôt maanaam le Havre les amis li mo nekkoon donc information ñu bëggon jox toujours un plaisir de vous servir wéy leen di like wéy leen di sur une chaîne bi di Baba Shock ak eSport TV su baax ci la gars yi su bonee suñu la jaa def